coñ bi Cheikh Omar Sy ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. yow yaa ngi njiital OSIDEA nekkit euh, ancien député ci assemblée nationale euh, ñu tàmbalee waxtaan bi ak euh, kàddu yi nga xamante ne njiitu réew mi yëkkati na ko 31 décembre bi wees mu mel ni kon am na ay ponk yu bëri nga xamante ne laal na ko ci wàllu jumtukaay mooy kon infrastructure wàllu wërgu-yaram rawatina ak yeneen ponk yëpp yow la ban jàngat nga def ci discours bi. waaw discours bi comme ni nga ko doon xaaree discours bilan la mais discours aussi perspective la xam nga dellu na d'abord ci Covid bi lan la ci état bi taxawee. Mhm. ak li nga xam ne def nañ ko ci moyen ci wàllum indi vaccin yi euh, pour taxaw askan bi ci wàllum faju bi ak moytu euh, euh, Covid bi law ci biir dëkk bi. Mhm. dolli na ci wax investissement yi nga xam ne def nañ ko ci wàllum hôpitaux yi nga xam ne yu bees yi ñu ñu juróomi hôpitaux yi ba nga xam ne jóge na bi Kédougou jaar bi ci Kaffrine ci bi nga xam ne tey mooy ay ogo añam euh, ay yëpp ko ak li nga xam ne def nañ ko ci ay recrutement ci ay médecins. Hmm. Euh, yooyu yëpp dellu na ci dellu na tamit ci li nga xam ne moom mooy euh, économie bi wax ci xëyu xale yi wax tamit ci li nga xam ne tey mooy euh, wàllum recette fiscale yi nga xam ne tey état bi nee na stabiliser na ko am na tax am na sax loo xam ne yokku na ci ci koom-koom ci wàllum recette li nga xam ne état bi mu ko doon xaar wax na ci wàllum. wàllu mbay mi tamit ak moyens yi ñu ci def plus de soixante milliards yi nga xam ne ci ay intrants ak ci matériels yi ñuy xaar ak tracteurs yi ñuy préparé ak jàppale bu ñu bëgg di jàppale paysan bi wax na tamit ne euh, tey li wàllum prix wu gerte gi dinañ ko. dinañ ko téye ci deux cent cinquante franc fa yooyu yëpp dellu na ci économie bi dellu na ci perspective yi tax te waxtu na ci li nga xam ne ay réalisation boole na ci tey li nga xam ne sénégalais yi gis nañ ko mooy terre bi. Mhm. wax na ci wàllum tali yi nga xam ne ñu ngi koy yokk wax na aussi ci wàllum avion bi nga xam ne tey ñu ngi ko réceptionné dugg ci infrastructure yi ak yi nga xam ne ñu ngi koy jumtuwaay yi ñuy waajal. ci at yi ñu bëree at yi di ñëw surtout investissement yi nga xam ne plus de deux cent cinq deux mille cinq cent kilomètres de route ñu bëgg def ñu bëgg a defar pour euh, créer emploi yu bëri loolu daal ci ci ci di ëpp ci li mu wax teg na ci nga xam ne tey mooy wàllum euh, perspective yi nga xam ne ci at yi di ñëw bëgg nañ ci taxaw pour dëkk bi gën a naat. Hmm. boole nañ ci nag tamit li nga xam ne tey mooy autoroute à péage beeg euh, pétrole bi ak gaz bi nga xam ne ñu ngi koy saytu muy ñëw. Hmm. yow mi jiite observatoire euh, de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique ban xayma nga mën a def ci Sénégal ci diirub 2021 bi ci wàllub koom. waaw xam nga bu ñu bu ñu xoolee tey li nga xam ne tey mooy. Euh, koomu Sénégal naam benn budget bi wàññeekul woon dañ ko yokkoon presque dem nañu ba cinq mille milliards euh, ci biir loolu ñoom nee nañu fexe nañu ba tey stabiliser nañu euh, économie bi wante ba tey la ñu dese gis gum te xale yi di ko joytu ba tey mooy xëyu ndaw yi mm-hmm. parce que même bu nekkee programme mu DER bi am na xale yi yuxu nañu partout ne ñoom seen seen gisaguñu seen bopp ci projet yi gisaguñu seen bopp ci ci li nga xam ne tey mooy financement yi euh, li nga xam ne tey ci boo ko xoolee aussi du point de vue euh, économique ci yenn am na ay remous yu bëri am na ay yëngu-yëngu yoo xam ne am na fi ci ay syndicat am na fi tamit ci ay ci wàllum euh, secteur agricole bi euh, dese na gis ñu bëri wax nañu fii ci affaire wu li nga xam ne tey mooy intrant yeeg nu mu yooyu yëpp président de la république war na ci bàyyi bàyyi xel mais comme comme tamit dañuy ci bàyyi xel ci wàllum corruption parce que corruption tamit day day day gàllankoor koom-koom gis nañu lu am post ak euh, détournement yi gis nañu tey récemment yi nga xam ne tey mooy li am trésor public ak quatre virgule cinq milliards yi yooyu tamit Euh, ci wàllu koom-koom day day day delloo dëkk ci ginnaaw parce que dafay mel nii ne administration fu mu ne nii. Hmm. dafa am ñoo xam ne dañuy def tulleeg male boole nañ ci lonage yooyu yëpp ay hmm. ay jàngat la yoo xam ne mooy wane ne corruption bi ba tey xeex bi des na. Hmm. te bu tànk xeexuñu corruption koom-koom yi nga bëgg yokk tamit dafa am lu bëri lu ciy wàññeeku. ci marché agré agré yu bëri gis nañ ko ak tolof tolof yi nga xam ne tey euh, gis nañ ko ci Senelec mu ngi koy dund ak ITOC li nga xam ne tey bloqué nañu ay comptam te loolu tamit mën a indi ay ay problème ci wàllum wàllum wàllum wàllum économie bi. Hmm. donc am na ay problème yoo xam ne tamit euh, ñu ngi fi taxaw ne tam di xaar président de la république euh, pour mu wu ci solution euh, ci ni mu gën a gaawee. bokk na ci li ngeen doon xeex tamit péyage bi nga xamante ne xoolaat nañu contrat bi diggante état bu Sénégal ak waa Eiffage mu nekkoon seen xeex léegi ndax am seen xel dal na ci. waaw euh, dañ ciy sant yàlla parce que ñu ngi leen di dégg fan yi yëpp ñu def ci ay ay génn yu am solo. Mhm. Euh, di di ko rafetlu ñoom di leen ne fexe nañu ci ñetti at yi def négociation ñetti at yi nag bu ñu fàtte ne collectif des citoyens des usagers de l'autoroute à péage ñun ñii ñoo taxawoon di xeex tem te bañ koy taxaw kenn ñu ci woon kenn dañu yaakaaroon ne sax ne ñun. Euh, li ñuy wax amul amul fi ñu ko wér yàlla def na tey ne plus de trois cent cinq milliards ne nañ dinañ ko récupérer d'ici deux mille quarante et un tey ci li nga xam ne tan moo doon taxe domaniale ba ñaar téeméeri yóbbu nañ ko ba un milliard li nga xam ne tey mooy capital bi société bi nga xam ne france yi ñoo ko moomu leen seen bopp cent pour cent ubbi nañ ko à vingt cinq pour cent donc am na njeexital même ba tey des na wàllum sécurité bi ba léegi parce que éclairage bi waroon na dem ba AIBD demagul président de la république nee na dina am li nga xam ne tamit ci wàllum yenn euh, sortie yi nga xam ne tey parce que gis nañ ne embouteillage yi ci autoroute à péage bi mm-hmm. surtout ci wàllu ay Kër Massar jëm euh, yenn sortie yi nga xam ne tey ay côté mbaaw la loolu bu nekkee bu nekkee xaalis bi nga xam ne tey Eiffage mu ngi koy dugal te jéggi na doyo euh, euh, mu ngi am mu mu ngi am dañ ci war a taxaw ñoom waa Eiffage pour mën a ubbi yeneen yeneen yeneen yeneen sortie yi ñu gën a ñu gën a féex mais surtout trafic bi gën a hmm. loolu tamit euh, ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. parce que tamit euh, am na yeneen infrastructure yu ñëw te loolu tamit ñun euh, gëm nañ ne loolu yëpp sénégalais dañu war a saytu pour xam fan lay xaalis bi dugg surtout terre bi nga xam ne tey inauguré nañ ko def nañ plus de sept cent quatre vingt milliards mais am na ay contrat yo xam ne leeragul suñu bopp. Mm-hmm. loolu leeraay loolu gis ngeen ko docteur Abdourahmane Diouf am na ay questions yu am solo yu mu ci génnee yoo xam ne par rapport a gestion wu Euh, li nga xam ne euh, terre bi naka la ñu war a def ba ñun tamit sénégalais yi nga xam ne def nañ suñu xaalis war ci gis suñu bopp. Mhm. léegi euh, ci biir kàddu njiitu réew yooyu wax na tamit ci élection locale yi ñu dëgmal ak lu muy sàkku lépp daal di am ci jàmm woote googu yow naka nga ko jàngate yow mi nga xamante ne bokk nga ci kon ñuy xëccoo locale yi. waaw woote bu am solo la parce que tamit euh, ñu ngi jëm ci ay li euh, ñu ngi am ay euh, ñu ngi am tiitaange par rapport ak élections yi ndax dina am jàmm du am jàmm li nga xam ne tey mooy plateforme jàmmi réew mi tey am na taxawaay bu mu ci def pour génne benn charte moom ak li ñuy CUDIS muy cadre du unitaire islamique yooyu tamit yëpp pour jàmm am la jàmm nag li koy tax a gën a jóg transparence am bañ am ju jaaj ci bëru élection yi bañ a am dara loo xam ne tey. mën na fexe ba tayloo xel euh, xelu sénégalais yi. Mhm. gis nañu tam ci mbir mi euh, cour suprême daal dinay addu daanaka euh, ci li nga xamante ne moom la ñu jëloon ni ay dogal mu mel ni am na ci juróom-benn dogal yi nga xamante ne kon cour d'appel bu Saint-Louis ak bu Ndakaar jëloon nañ ko ci coowal Yewwi Askan Wi. ñu daal di koy finalement euh, kon annulé euh, loolu ndax am wanal tamit benn limite euh, ci confection liste yi bi opposition am. <clears throat> waaw loolu loolu dañ koy rafetlu parce que gis nga justice tamit bu defee lii bu bu defee loo xam ne sénégalais yi teg nañ ci bët mu jaar ci yoon dañ koy rafetlu mënuñu toog tamit bu justice mën nañu ñu xëy ñu ŋàññi justice. Mm-hmm. nee na justice def jaarul yoon bu justice defee dara tamit war nañu ne ah ay la yowoon justice bi li ñu doon xaar ci moom def na ko tëddee na jaaxaanaay. Mm-hmm. loolu tamit ñu ngi koy rafetlu. parce que euh, tey euh, ba préfet yi defee li ñuy def ñu bëri taxaw nañ ne ne lii moom euh, du yoon ah ñu yóbbu ko justice justice wane boppam am loo xam ne nangu na ko changé ci yu bëri nangu na ko changé delluwaat ci ginnaaw wane ne préfet préfet yoo amuñu woon droit def ko donc déjà loolu wane na ne Sénégal am na justice. Mhm. ñu ngi koy jooytu souvent mais booy jooytu dara tamit nga gis loo xam ne def nañ ko te li nga li ngay li nga doon jooytu méngoo nag lenn li nga xam ne tey jaar na yoon da nga war a wane ne justice bi tamit mu ngi taxaw am na taxawaay bu mu am ci ci ci ci élection yi. Mhm. léegi nag la ca des mooy ñu fexe ba gën a renforcer suñu suñu transparence ci jouru scrutin bi fexe tamit ba benn sénégalais bu demee voté bu nekk voix am compté. Hmm. yow en tant que ancien député ñu gis benn groupe euh, ci ay député ñu bokk ci kuje gi rawatina ñu déposé a proposition de loi bu yàggul dara ngir kon criminalisation homosexualité euh, loole nag euh, ci assemblée nationale dañ ko teg te foofu dañoo xam ni majorité bi moom daanaka ñoo fa ëpp doole lu ñu bëgg mooy jàll ndax boobule projet de loi mën na antu waaw projet de loi bi déjà man dama am loo xam ne dama koy dama koy ñaawlu mooy dañoo jël benn liste ne ay député dañoo demoon euh, fi nga xam ne tey mooy Nations Unies pour défendre li nga xam ne tey mooy cause góor jigéen yi wala LGBT yi. Mhm. te loolu mosul am du waxu du dëgg euh, ñi ko wax tamit ñu ko ci benn firnde la ñuy wax invention donc la. Mhm. Euh, nit tamit da ngay wax loo xam ne dafa dëggu. Mhm. même man mii maa gën a contre homosexualité mais dañoo tooñ ñi nga xam ne ñooy député yooyu parce que amul benn député boo xam ne mos na dem Nations Unies pour défendre loolu. ki la fi amoon mooy benn réunion boo xam ne moom Mamadou Lamine Thiam dafa bokk PGE PGE ñëwoon fi ci wàllum euh, ODD yi mooy li nga xam ne objectif de développement durable mm-hmm. moom mu ñëw jiite benn reer moom président de l' assemblée xamul sax lan moo xewoon dafa ñëw rek jiite te loolu day a di am assemblée nationale mu ñëw jiite loolu ñu tam ba ñu xëy rek gis liste bi di circuler ci benn document ñu ne ñii ñoo demal loolu pour man euh, du du yëfu kilifteef du jaxase député ak de ak askan bi pour des des objectifs personnels baaxul. Mhm. mais la ca des mooy lan man sama taxawaay ci affaire góor jigéen yàgg naa ko wax man dama ko contre te loi boobu and naa ci maintenant. loi mën nga cee ànd boo ko boo ci àndee proposition de loi bi déposé nañ ko assemblée nationale ñu ko déposé euh, ñoom def nañu seen wareef et assemblée nationale groupe parlementaire amul pour tere c'est-à-dire nee na ñun du ñu voté loi bi parce que lii jël nañ ko déjà en compte groupe bi loolu du taxawaayam tax loolu bureau assemblée nationale mooy décider ne proposition de loi bii di ñëw ci lan nañ ko bindee ak la ci biir euh, méngoo na ak li nga xam ne tey assemblée nationale mën na ko nangu pour proposition de loi bi jàll ci commission technique bu jàllee ci commission technique ci commission bi ci boppam la ñuy saytoo la ñuy xool la pour xam exactement est-ce que lii euh, code pénal bi jël na ko en charge wala jël ko en charge. Hmm. moom ay miiru ni nee na ne code pénal bi jël na ko en charge loolu euh, du moom moo ko war a wax ministère de la justice moo war a ñëw foofu. défendre loolu bu ko defee soit en commission technique ñu voté bu ñu voté mu jàll wala mu bañ a jàll. loolu foofu la ñu leen doon xaaree et député yi def seeni rôle mais groupe parlementaire ci boppam munul décider ndax am benn loi war na jàll wala du jàll loolu euh, député yi ñoo ko war a voté. foog naa ne foofu la lañ leen di xaaree te war ñu bàyyi projet proposition de loi boobu jàll ba pare di ñu xool askan bi mën a xam. ñan ñi nga xam ne ñan ñooy député yi nga xam ne voté nañu pour wala contre. Mm-hmm. la ca des euh, ñu mën a xool naka la ñuy avancer pour protéger suñu valeur ak suñu culture. yi mm-hmm. nga xam ne ak ñu ngi koy agressé un peu partout. Mm-hmm. à travers euh, des propositions xam ne méngoowul ak suñu dund. pank bu mujj rek xanaa yow candidat nga ca mairie bu Golf Sud euh, jamono ji tembe ay fan yu néew a des ngir campagne bi door wax ñu ci importance kon yile élection ak campagne gi fi ngeen ci tollu wàccaay gi. waaw man candidat la ci niveau de golf sud macha allah te fi mu ne nii biir golf ñu ngi ñu ngi ci terrain yi wàcc di proposer li nga xam ne tey mooy suñu gis-gis ñun suñu coalition avec liggéeykat yi euh, di rafetlu tamit démarche bi nga xam ne ñu ngi koy am candidat yëpp di ko am ci biir golf sud. parce que juróom-ñett la ñu mais ñëpp a ngi koy def ci jàmm ak salaam te loolu la ñuy xaar pour que élection yi nga xam ne tey dafay changer xarkam na mu euh, commune yi parce que avant conseil yi dem mairie bi donc candidat yi na daañu woon concentré si programme yi dañ doon concentré wu ci conseil yi nga xam ne soit mun leen leen corrompre wala jënd leen pour hmm. ñu mën a euh, mun leen voter mais bi yoon li am mooy Euh, kan maire yi ci boppam ñi ñi ñu nekk tête de liste ñoom ñooy nekk maire donc il faut nga présenter programme il faut nga wax nit ñi ci lii nga xam ne tey liggéey bi ngay nar a def pour commune bi ban gis-gis nga am naka nga ko nar a defee ci juróomi at yi wala ci fukki at ñun ci fukki at la ñuy wax yooyu yëpp débat yoo xam ne tamit war nañu fexe ba candidats yi ñoom ñëpp di toog di dajale ñi xam ne bokk nañu benn commune askan bi déglu leen ñu confronté wu ci ay idée de ay débat d'idée pour wax commune bi naka lañ koy defee yóbbul kanam mu bañ a nekk rek ay ay wàllum euh, guerre nga xam ne dañuy ñëw di proposer femmes yi ay somme d' argent leen gëmloo ne dinañ leen financer boo leen ñu voté di leen defal tel tel projet yenn saa yi boo déggee candidat yi sax dañuy wax méngoowul dara ak li nga xam ne tey mooy seen prérogative en tant que euh, bu ñu nekkee maire ci li ñu mm-hmm. war a mën a def mm-hmm. yooyu tamit Euh, ñu ngi ñu ngi ci terrain bi te gëm nañu ne mu ngi commencé am euh, ay changement ci bopp sénégalais yi parce que dinañu gis nañ ne de plus en plus xale yaa ngi yeewu par rapport ak euh, exigence yi nga xam ne pour seen commune la ak femmes yi donc lii nga xam ne jël nañ ko fexe ba tête de liste yi ñu xam leen loolu mën na dans le futur indi ay modification yu rëy a rëy ci wàllum euh, gestion collectivité territoriale yi. Mmh. yow yaa yi njiital euh, OCID euh, OCID yaa ah, nekkoon tamit député ci assemblée nationale Cheikh Omar ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. merci jërëjëf